يقربه إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والملة يا كتاب asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki talibe yi ñi fi teew ñëpp di góor jigéen mag ndaw ñoo leen di ndokkeel bu baax ci ndam yu mag li nga xam ne am nañ ko te muy euh, ndamal quranu karim di mhm. di ndam loo xam ne yàlla da koo jagle Sénégal de jagleel ko dëkk bii di Touba mhm. muy loo xam ne ne waneeti na euh, kéemtaani borom subhanahu wa taala mhm. ginnaaw ba leen yooyu ñëpp teew fi ñi dalal suñu mbokk suñu sëriñ daara suñu laaj a Cheikh ni ndëkkalaaj bu baax a baax wàcc waayam ndam lu mag yi sëñ bi xam naa dañ lay bàyyi nga àggal mbokk yi sa yëg-yëg ci mbir mi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu ci turu sama sang yi taxaw muy eh, sëriñ daara yi ci turu eh, sëriñ daara yi nga xam ne ñoom ñooy eh, borom mbir yi dëgg di jàmbaar yi xam ne ñoo jug quatre heures du matin jàmbaar yi nga xam ne lu nelaw neex-neex ñu mën koo dagg jàmbaar yi nga xam ne lu mbaar ma tàng-tàng ñu mën koo dékku jàmbaar yi nga xam ne lu mbaar ma xat-xat ñu mën koo dékku jàmbaar yi nga xam ne lu xale yi euh, lëjël lëjël leen ñu mën ko dékku mhm. kenn dong day am doom ci sa kër euh, mu tëla ticc moom ñoom nag ñu yor ci mbooloo di jànkoonte ñoom guddi ak bëccëg jàmbaar yi nga xam ne xamuñu nelawu bëccëg xamuñu nelawu bëccëg waxtu yi xam ne wala ñu nelawu bëccëg moom la ñu dugg ca mbaar ma jàmbaar yi nga xam ne marax ak njël la ñamale ñoom la ñuy wax ci seen kàddu ndax ñoo ñooy borom borom ndam yi ñooy ñooy jàmbaar yi ab xale lu mën mën a jàng lu mu jàmbaare jàmbaare jëlewu ko ci asamaan si wàccu wàccu wut wàccu comme ab taw jàmbaar yi leen yoroon ñoom la ñuy jiital kon ci lépp lu jëm ci wàllu sargal gi ak lu jëm ci wàllu ndokkeel gi euh, ndam li nag li ñu ko wax léegi ndamul ñëpp la euh, képp ku du ab jullit rek sa ndam la euh, rawatina nag ngay sénégalais waaye nag nga dëkk fii ci Touba Touba gi nga xam ne Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mi ko sañcoon loolu lii rek ko taxal mu sañc ko leen lu fi ñëw lu ne defee wàlliyaan si leneen lu fi ñëw lu ne defee wàlliyaan si waaye li ko taxoon mu sañc ko moom mooy jàng ak jàngale loolu la waxoon jàng ak jàngale képp moo taxoon mu sanc ko mm. ca boo demee matlabul fawsayni da nga gis ne mboolem luy xeeti xam-xam bu am njariñ ñaan na ko fi mboolem luy xeeti xam-xam bu am njariñ ñaan na ko fi mm. e, bépp xam-xam bu mu doon la ca jiitu nag mooy xam-xam bii mm. ndax mooy ndey xam-xam yi mboolem xam-xam yi lu ci am njariñ rek alquran mooy mooy ndey ji bu yàlla dogalee nag ñu am sunu doom soxna Ndata Cissé hafidaha llahu taala wa raaha e, dem ca Dubai e, séq ko ak ay ay ay naar Euh, ay ay ay jàngkati alxuraan ñi alxuraan wàccoon ci ñoom euh, yàlla dogal mu jël fa première euh, nañu bàyyi xel ne juróom fukk ak lu topp la woon ñu ñëwoon Dubai bañ leen seetee ñenn ña dañ leen daal di yeewi ba mu des quarante neuf quarante neuf yooyu mu bokk ci la tax ñu yeewi leen ñooñu dañoo mënut li ñu leen di doyee muy mokkal gi dafa des moom nag mu bokk ci quarante neuf yooyu biir quarante neuf yooyu it lu doy waar am ci mooy soxna Ndate dafa bokk ci groupe bi mujj jàng hmm. samedi cinq euh, dix personnes ñu jàng cinq suba cinq ci ngoon gi. dimanche noonu lundi noonu mardi noonu. mercredi bi nga xam ne moo ko war a tëj nag cinq jàng ci suba gi mu nekk mu bokk ci cadre yi mujj a jàng nga ne nga xam ne loolu daanaka xale yi jàng ñi jëkk a jàng da ngay yaakaar ne yow jeexal nga da ngay affalé da hmm. yooyu day lu ma ta bàyyi xel xam nga compétition ñaari léeg-léeg boo ci duggee hmm. fekk ci ay jàmbaar ku ne bëri di wane aw xelam. Hmm. bootu da ngay découragé da nga naan man jëru ma jéem ndax ñii ma man hmm. waaye ànd ak loolu lépp mu bokk ci groupe bu njëkk bu mujj a jàng wane ak njàmbaar wane euh, euh, ndam lu réy noonu hmm. kon loolu ñun ñëpp suñ suñ mbir la kon ñun ñu ngi koy sargal bu baax a baax di sargal euh, mboolem ñi nga xam ne ñoo yëngu ci alxuraanul karim ñu mën a doon di wax ne nag ñi ngi leen sant yéen journalistes yi wax dëgg yàlla yéen ñi leen sant ndax euh, da ngeen ko ànd ak ñun da ngeen ko bokk ak ñun. bi ñu ko yëgle léegi sànq maa ngi koy wax ci ci seen groupe bi. Euh, di wax na rek yëgle bi xëy na ni mu war a demee demeewu ni waaye yéen xoolu leen loolu da ngeen gis ne seen jumtukaay jaamu yàlla ngeen yor. lii lu ñu war a a jong lu ñu war a njëkkante la. lu ñu war a la. Euh, ngir wane ko ngir am aw yiw ngir am tuyaaba kon ñoo ngi leen ci sant bu baax a baax a baax a a baax. kon xam naa loolu mooy kàddu njëkk yi bu dee amatoo beneen laaj ñu xam ne daal ndam li daal ndamul Cheikh Mouhamadoul Mountakha la ndamam la ndax wax dëgg yàlla jaww ji dafa dafa wàcc. jaww ji dafa sell lool. Eh, amoo lenn lu lay perturber. Eh, amul ku ku soo ku yor ay baafal nekk sa wet di di tëgg ay musique hmm. amoo lenn lu lay perturber. Hmm. Eh, ñi ngay nekk doon ñëpp jaww ji jàng ñoo nekk ñoom. Hmm. jaww jooju Cheikhul Khadim tànnoon nag radiyallahu anhu ngir ngir jëmbat fa lii ci meññat di rek la bokk. loolu moom mooy li nga xam ne moo am dëgg-dëgg. macha allah sëñ bi kaddu yi rafet na lool. teeru bi ni ngeen ko teeroo ak ni ñu ko jàppee woon koo xam ni mokkal na alxuraan dem ñëw jël première ci ni nga ko waxee àdduna bépp. tey ñu war ko war a teer ñu teeroo ko teeru bu mel nii ndax euh, jàppoo ni nit ñi waroon nañu mën a génn génn gu ëpp gi euh, ba teeru ko tatagal ko mu xam ni alxuraan amuñu lu may moom waaw kay loolu moom mooy li li li war am damay jàpp ne xëy na xëy na dëgg-dëgg ñàkk a ñàkk a yëg la euh, coordination wala loolu waaye nit ñi gis naa ne ñu bëgg alxuraan lañ jàpp naa ne loolu rek moo ci moo ci am hmm. waaye mbooloo mi war naa ëpp hmm. loolu mooy li am filaax léegi lan moo tee ñu ëpp lii nag damay bañ rek ñu jiiñ ko ni nit ñi yaakaar da leen a ñorut wala da leen a yitteelu wala nangam nangam euh, nañ leen dogal ngànt mhm. euh, ndax mooy gën a rafet diggante jullit ak ak moroomam jullitam ala kulli xaal waaye li am solo moom mooy kum fi doon ci ñun euh, ginnaaw ñun ñun benn benn jasad lañ kum fi kum fi doon ci ñun dafa moo teewal ñëpp bu fi mhm. kenn teewal moo moo teewal ñëpp mhm. waaye nag mbooloo mi moom wax di yàlla lu ñu gën a génn lu ñu gën a bari moo gën ndax moo gën a sagu jurbel gee ñu jaar bañ fa àggee mbooloo ma fa nekk jéggi na daye kon nag Touba waxe na plora doon waaye jàpp naa ne bu ñu jógee fii incha allah defum diiraan bala ñu àgg jumaa ja danañ am mbooloo mu jéggi dayoo moom loolu jàpp naa ko bu baax a baax incha allah macha allah suñ bi kàddu defet lool rafet nañ ko bu baax a baax a baax waaye tamit bëggoon nañoo xam ko en tant que daara te suñ tubaab waxoon ci dëkk bi ne bustaani kitaabullah yow bën sentiment ak bën yëgee nga am ci ci li nga xam ne ni yow yaa ngi koy dund ci daara ji waaw daara ji moom daara moom ñun mbégte lañ ci am hmm. sëriñ ab sëriñ daara hmm. boo ko fekkee ca mbaar ma hmm. boo ko fekkee ca xet ga fekk moom bu benn xale taree juróomi sib gagut hmm. mbégte moom ciy yëg moo dàq climatiseur ba gën a sedd hmm. moo dàq jaww jaww yi gën a neex hmm. loolu la maanaam ab sëñ daara amul amul damay def léeg-léeg ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne tubarkàlla gañe ne nangam ko gañe vingt millions ci nangam ma ne leen seen nga waxuma la vingt millions waaye xëyum sëñ daara sëñ daara bu xëy ba wàcc am xëyam moo gën àdduna ak li ci biiram amul lu ñu koy gam-gam leel amul lu mu tollool loolu dañ ci xam yëg boobu nag lañ am yeg hmm. yëg boobu mu leer nañu mission li ñu nekk di ci xëy ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan xëy ci la daan gont mboolem ñi ko wutu woon noonu Serigne ci la daan xëy di la ci bustaani kitabullah hmm. mooy ab kon lool boobaa duñ duñ ci am lu may ñun am ci feer fierté bu rëy rëy rëy hmm. mu rëy rëy rëy hmm. moo xam ne nag li saf moom ki ko macc rek ko xam maanaam nit na laa toog di la yërëm di la yërëm ci comportement di la yërëm ci melokaan di la yërëm ci yaakaar ne da hmm. di la yërëm ci way way fekk ne moom bu la nga ci biir biir ndax yëg-yëg dëgg ci xol lay ne mën am nga gis nit ki mu am ay milliards am jekk lu bëree bëree bëri ci saa bu tuur ndox ne hôpital lay tuur ndox kooku waxtu nekk. macha allah muy kàddu yoo xam ne xam naa ne mboolem suñu daara yi fi nekk yëpp xam naa mën nañ ko seede waaye nag kenn waxee waxaale ñëpp kon sëñ bi xam naa kàddu yi jërëjëf rafet na lool macha allah. jërë ngeen jëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu ñoo ngi dellu siwaat ci di leen nuyu di leen ziar di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool ci ànd ak wér mbokk yi nag ginnaaw bu ñu déggee yenn ci ay réaction yu nga xamante ni sëriñ daara yëkkati nañ ko ngeen xam ni tey ñu ngi wëy nekk ci bës bu mag bi nga xamante ni moom la ñuy fee euh, euh, teeru kenn ci ñi nga xamante ni euh, doomu Sénégal la waaye tamitam doomu Touba la mu di soxna Ndate Cissé bi nga xamante ni moo gañee Euh, concours international bi ca Dubaay mu war a si nag fii ci Touba yaakaar naa ay simili yu néew mi ngi tollu Mbàkke ñu si ñu taxaw ak kenn koo xamante ni bii mën nañoo jàpp ni la Serigne Touba Xaadim Rasul ñaanoon muy zuriyatan tayyibatan tujaddidu nax jëna bil Mustafa taj tahidu ma ngi ci teg tànkam mu di soxna muslimatu Mbàkke bintu euh, Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbàkke Falilu yàlla na yàlla yokk ay leeram mu mel ni euh, borom taxawaay la di jàng ak jàngale waaye itam kenn ci sëti Serigne Cissé Sànn di soxna Nafisa kon su ko defee dañ lay jox kàddu gi rek soxna si euh, tey euh, jéego yi fii ak euh, ndam li nga xam ni alxuraan amanit amati ko waaye itam soxna am ko muy jigéen waaye ci dëkk bu sell bi di Touba lan ngeen kàddu ngeen ci yëkkat. bismillahi shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëf sëñ bi ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax di am moo xam ne dafa mel ne Euh, fees na ci suñu xool ba nga xam ne euh, li ñuy wax sax dañ koy jéem rek mais du doon lu yomb ci ñoon ndax euh, santiment moom fu mu gañee nit rek moo xam ci lu ko neex la wala lu ko naqari pour mu wax day jafe ñu am yëg-yëg boo xam ne nag suñ borom dogal na ci mbégte la ñu dikkee ñu ànd ak soxna muslimatu mi nga xam ne ci lu mel nii rek laa mën a wax ne ci nga koy gis mu jaral ko mu bàyyi yitteem yëpp euh, ñëw taxaw ñu ànd moom te ci lu mel nii rek moom lañ àndee ak moom nag euh, ñu dégg na soxna si di soxna Ndate mi ngi war a egsi fii ci kanam tuuti ñu war koo teeru ndax euh, gis nañ ne li ñuy tuddee ndam yàgg naa am ci réew mi ñuy teeru ña ko indi waaye dama yaakaar ne loola tur wa moo tudd ndam waaye ndam dëgg ndam pur li tax ñu naan ndam mooy ki nga xam ne moo indi ndamul téere bi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa ne woon ca jàpp man masatu bil kitaabi maska dariri téere bi moo ne sëñ Tuubaa ne woon taw li téye ko ne moom laay wommatoo moo may gide téere boobee ka indi ndamam moo indi ndam téere boobu sëñ Tuubaa ne woon mooy sama xarit mooy sama lépp mooy sama docteur yaa kitaabal karim anta xalili wa habibi wa kunta xablu tabi wa nee na téere boobu bu xaritam di soppeem di léppam di alquran ndam loola la soxna Ndate indi kon kooku tey dama jàpp ne waa dëkk bépp ñoo waroon a génn tey waa Sénégal lay wax ñëpp waroon génn teeru ko mais plus particulièrement waa Touba kon damaa jàpp ne tey mbedd Touba foo romb dafa war a fees ndax ndam lu dëppoog dëkk bi moo fi am yeneen xeet ndam daana fi am ñu gis xale yi dëkk bi ku ne di génn ku ne di manifester ku ne di ciblé mais xëy na loolu ci leen lañ ko laan am loo xam ne xaw nañ ko mën a am po waaye tey ndam li nga xam ne leer nañu am nañ yaqiin ci ne Sëñ Tuubaa bég na ci am nañ ku taxaw fii rusoo Sëñ Tuubaa fekk tey ñun ñu taxaw fii ñëpp rusuñu Sëñ Tuubaa fekkuñu fi rusuñu Sëñ Tuubaa tax euh, dawal otoom fekkuñu fi kon tey jàpp naa ne dëkk bépp ñoo waroon génn teeru ki nga xam ne mooy soxna Ndate ngir lan moo indi ndam li nga xam ne mooy ndamul sëñ Touba moo gunge woon sëñ Touba ba muy dem moo àndaatoo moom bi muy dellusi ñu ne kan moo indi ndam loolu ak fan la dëkk ñu ne Touba ci dëkk sëriñ Touba bi nga xam ne alquran képp moo taxoon sëñ bi samp dëkk bi kon tey bis la boo xam ne li ñuy yëg ci mbégte gis gi boo forcé woon ko waxal sax du wax fi mu taxaw nii daanaka boo ko doon kaata du ko yëg te yëg-yëg boobu moo nekk ci ñun ñëpp daanaka dañuy forcé di wax nii rek mais depuis boobu ba léegi euh, suñu rencontre mi ngi doog a xaw a fer daal ci na ma la ko mën a waxee ndax mbégte min yëg suñu xol tooy na tooyaay boo xam ne suñu bët sax mënatu ko maîtriser waxuma laak nag di taxaw sax di wax kon wax gi ñu wax ni sax ndimbalal yàlla rek mais sax du loo xam ne du loo xam ne mën nañ ko kon dañuy wax alhamdulilahi rabil alamin di wax ne ndam yii nga xam ne lay sëñ Tuubaa tamit yàlla moom loo na ma alquran yàlla bu mu fi jógati yàlla bu ndam di jógati fii yàlla nay dikk di dikk di dikk di dikk ba faw rek di bàkk Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul salaamaaleykum wa rahmatullah ya kitaabal kariim anta habiibi وقليل كنت تسليم مالكي السلام دحق فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون يئوس وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salaam gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu wa sallam ñu sant Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di ñaanal xalifa général des mourides mu yàgg si kër di nuyu Sëriñ Xabbaan mi nga xam ne moom la Sëriñ Muntaxa dénk njàngam alquran mi ci dëkk bii waaye di nuyu bala ñoo wax dara di nuyu soxna Ndate Cissé mii nga xam ne mm. sët la ci Serigne Mor Mbaye Cissé mm. nga xam ne moo indi ndam lu rëy lii ci Afrique mm. andi ko ci Sénégal waaye indil ko Serigne Touba ci dëkk bu sell bi bi nga xam ne Serigne Abdou Lahad bi muy natt université bi 1986 daf ne Serigne Touba daf ne damaa bëgg def daara joo xam ne fu waay takkee galagam galag mooy bagage ñëw di jàng di wuti xam-xam bu ñëwee Touba bu ko tekkee da bu fi jógee dootu takk jëm fenn wuti xam-xam Serigne Abdou Lahad moo waxoon loolu bi muy rëdd université bi 1986 ne Sëñ Touba moo ko wax Serigne Touba bàttale ñett ci dëkk bi muy nañ ko indi Touba nañu ko liggéeyal jumaa ji nañ ko defar daara ju amul fenn ci àdduna yoo xam ne lu fi waaye di wut xam-xam boo ñëwee da ko am te dootoo wuti xam-xam feneen kon sëñ Tuubaa lan doon lan ñett yim santaane woon suñ borom dimbale na ko ci Sëriñ Modou Moustapha ya indi na ko ci jumaa ji liggéey nañ jumaa ji ñi ngi tabax daara ji kon loolu mooy santaane Sëriñ Tuubaa bi mu santaane woon ci dëkk bi kon nag ñu war a sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa ndax tey mel na ni yonent bi bi mu gàttaayee Makka jëm Madinatul Munawwara waa Madinatul Munawwara xiif ko lool mu agsi nañu agsi mbégte mañ amoon ak nañ xiifoon yonent bi dafa mel ni alxuraan sëñ Touba indil na ko tey waa Touba ñu xiifee nii ñu kon tey mbégte ma waa mag madinatul munawwara amoon ba sa yonent bi di agsi bilaal noddu dafa mel ni mbégte mu toll noonu bi am nañ ko tey góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp sant nañ kontaan nañ di ñaanal soxna si nga xam ne moom la yàlla may lii yàlla na ko yàlla guddalu fanam te wéral te te ak waajuram bi nga xam ne nag ku yebu sant waajuram bu baax a baax ndax am na loo xam ne boo loola ko suñ borom fu ko suñ borom di génne ci lu fu sell rek la mën a génne ci ndigal rek la mën a génne kon war naa nekk exemple ci mboolem jigéen du nekk ci borom ak borom këram di liggéey wala ngay liggéeyal yàlla war ngaa war soxna yi soxna Ndate mi war naa nekk exemple ci yow soxna Ndate war naa nekk exemple ci bépp gone ndaw boo xam ne yaa ngi fii ci réew mi tëdd ci dëkk bi di li di jàng moo xam looy jàng nga fexe ba àgg si ci fii mu àgg tey ci na ci nga xam ne dafa am ndam loo xam ne nii àddina bépp la daj ndax ku xool ca Dubaay ñi nga xam ne ñoo toogoon ca taaba ja mufti yo continent bu nekk ci àddina mufti jóge na fa ñëw toog ñu tiim toog di ko déglu muy jàng fulla jëm am ba àgg foofu courage bam am ba àgg foofu way jëm am ba àgg foofu gone gone war na cee jàngat fas yéene lépp loo nekk nga fexe ba àgg ca foofee kon xale yi am ngeen exemple am ngeen ko ci Serigne Touba am ko ci doxinam am ko ci jàngaleem am ko ci ci ci ni muy yar waaye jox na leen nag exemple tey boo xam ne xale bu am fukki at ak ñeent jël coupe de monde ci ci alquranul karim donc loolu doy na exemple kon xale yi maa ngi leen di ñaax ngeen góorgóorlu bu baax a baax te ci li ngeen nekk ba am ci ndax lu toll nii ndax àdduna li ci am solo mooy réussir ci turu nag conseil municipal bi Serigne Xabaan gannaaw bu ñu la siyaaree dan man danañ ko jox 3 millions yoo xam ne ni danañ ko ko siyaaree màggale ko ko ngir ndam li nga xam ne indil na ko Sénégal indil na ko Touba waaye indil na ko Serigne Touba loolu moom jërëjëf jëf jërëjëf jëf du ñu mën a wax nag te santuñu Serigne Cheikhouna mi nga xam ne moo ko jàngale parce que ndax Serigne Cheikhouna yal na yàlla guddal saw fan te wéral say cër man de bis ni ki tey ku la jàpp laa ku la bëgg laa takk naa la ah, takk naa la xarit ndax man damaa takk xarit alquranul karim ba ku bëgg alquran bëgg naa la ku fa foo ma seet ma seetale boo mu si siw danaa la seet wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ummati ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel ci mbir mu rëy nii nga xam ni monsieur le maire na ko léegi ma di ko tooñ ne ko tey discours imam la def dëgg la mbir moo xam ne sala al badru alayna rek la ñuy fàttali yàlla na yàgg amin amin alhamdulilahi alamin dañuy ubbil rek sëñ Mouhamadou Xabaar bi Cheikh mi nga xam ne moom la sëriñ bi dénk lépp lu aju ci jàng ak jàngale ci yoonu murit mu gàttandul ko ko xam ngeen ne bu ko cawatee mayoon mooy génnal boppam ni mu ko daan defe waaye moom mii nag fu mu teew euh, mag ko fa kuutaay ba noppi mu dégg ko lii boole ji kon mu génn ngir wan mbooloo mi ne yëg na lii bu baax yëg na lii am ma nga cay am mbégte mu wér a wér waaye nee na mbégteem daa dolliku bi nga xamee ne ca suba ba nëga nit ngeen jógee ndakaaru di indi soxna Ndata te mun leen a si ndax mbégte mu am ci moom Cheikh Mouhamadoul Mountakha lool yi gën na koo bégalaat muy mbégteem nit ñi ci alquran moom loola daa yokkaat mbégam waaye kon alhamdulillah bisub ndam la waaye bisub laxasaayu waat la ci ñun ñii ñuy tudd di tudd jàngalekat alxuraan ci dëkk bii ndax dafa mel ne xis nañ bàkk njaag ba noppi waaye ci baaxut suñ borom ak barkeb sëriñ bi yaakaar nañu ne bu ñu yokkee laxasaay yi tuuti rek euh, lu ñu yóotu danañ ko jot lu ñu yóotu danañ ko jot sëriñ Seexuna ñi ngi sant bu baax yàgg mbooleem ñi nga àndal ci waar wi ba lii mën a am ndax lii moom doonut lu dee ci fëkk doonut lu dee si lijjanti lu waay gàtt gàtt xam-xam da nga xam ne am puurit la puurit ci kawum ndox lay taaje résultat bu rëy la liggéey bu rëy ko jiitu bu yàgg bu metti ànd ak tawfiixi suñ borom yal na yàlla gën leen a kàttanal soxna Ndate tey day mbégte nga ci xol yépp ni nga sarale xol yi lii di yàlla na ko yàlla sarale sa xol defal la njabootug lislaam bu rëy koo xam ne seeni tur du jóg di feeñati ci lislaam ñu ngi sant bu baax a baax di sant sa way jur ci taxawu gi tey ñaanal sa wayjur wu góor ba nga xam ne jiitu ji na mbégte yii yàlla na am mbégte mu ko raw ca fam tëdd ca barsax ci barkeb Serigne Touba di barakatil Qur'anil Karim ngi sant euh, njabootug daara gépp waaye di sant monsieur le ci taxawaay boobu ndax loolu it lu am solo la tas jeex la soññe la dana tax gaa ñi yokkaat ak laxasaay tey seedeel sëñ Modou Xabaan it nag bi nga xamee ne ñu ngi ci wàccaay wi euh, ànd na ko ñun gunge ñi ci ba ci oto bi demoon Dakar jëli sonorisation bi ak la ca aju moom moo ko joxe ak loolu mu ci dolli su koy sant bu baax a baax ku mel ne sëñ Abdoulaye Dia nag dañ koy ñaanal moom liñ ko doon sant danañ ko sant sax waaye dañ koy dañuy sàkku ñu gën koo ñaanal suñu borom gën koo tawfiixal ndax it nag ak yëngutoom ci alquran euh, feeñal la lu bari wane na it njigte mel na ne jig na waa daara jig na waa réew mi ak yëngutoom tàmbalee feeñal la lu bari lu nëbb woon ba tax lii ci jeqi ko ba mën a dem bitim réew amaana mi ngi fi woon waaye nëbb woon na yitteem ak taxawaayam ak ñim àndal sëriñ Talla lañ la yóbbante woon tey ci turu sëñ Modou Xabaan dana ci ñëwal boppam ñi ngi yóbbantewaat ak cant ak mbégte waaye ne nag ak yi ñaan di ñaan suñu borom mu gën koo teral ndax xam nañ ne teraangaam mooy teraangay lislaam mm-hmm. koo xam ne boo yokkoo lislaam yokk ku lislaam ñor danga da koy da koy da nga koy da nga koy ñaanal kon ñi ngi koy ñaanal ci turu sëriñ bi di ko ñaanal ci turu donga yi ci barkeb alquran ak barkeb sëriñ bi suñu borom yokk ay taw xam ak ndimbalam di waxaat rek nag kon sëriñ daara yi ilal amaam rek nañ feddli laxasaay yi te gën a jëm ci kanam maanaam lii buñ ko defeegoon mbaxana buñ teel a naagu nañ li te jëm ca kanam insha allahu taala te xam ne lu gën a rëy dana ñëw li sëriñ Abdou Lahad wax léegi dafa yéeme ñetti ndénkaane sëriñ Tuubaa yi te ñëpp xamoon ko muy indi ko ci barab bee muy lixtikaafe ca jumaa ja ak tabaxal ko jumaa ji tabaxal ko daara ji bi ñuy tabax daara ji donga yi ci dëkk bi kër kër yi ba am lu toll ni bis bu daara ji taxawee Touba ca kanam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi Mansour waaw Mansour Samb bu Itihad Mansour Samb bu Itihad waaw njabootu njabootu daara moom. ndax dama matal. xëy na faaw ñu tudd waaye dama jàppoon ne. tey képp ku yëngu ci daara waxuma ñi fi teewut. sax ñi fi teewut sax am nañu mbégte ci lii tey maanaam bis bi day bisub daara moo tax settiwaat ci waa daara di sant euh, dañu may fàttali Serigne Mansour Samb aminul am lil ittihad al watani jamiat madaris quraniya moom it taxawaayam alhamdulilahi rabil alamina waaye bu ngeen gisee tudduma ko woon loolu rek la mooy bisama moom la ñuy defal moom la ñuy def sëñ Talla ngi nii euh, damaa dellu ci sëñ Ablaye romb ko te ku ne xam ne li mu ciy daj ah, ak ñi ñu ko àndal ñëpp waaye ñooñu ginnaaw ñun waa daar lañ ñun ñoo am bis ah. ku am bis nag doo sant sa bopp loolu rek laa ko defee woon kon ñu maase teewlu sëñ Talla balaa ñuy def sëñ moom dafa baax kon sëñ Talla ñëwal nii alhamdulilah lépp rek barakallah alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñëw nañu fii tey ñëw boo xam ni ñëw sant yàlla dëgg la cant yàlla boo xam ni su am na fu mu tàmbalee amul fu mu yem ndax xéewal gi nga xam ni moom la ñu yàlla defalaat tey ci biir réew mi xéewal gënu koo ci kaw suuf nga gënu koo rëy ci kaw suuf amul benn yëngu buy am ci àdduna ñu cay sargal doomu aadama di ci doomu aadama di ko jox ay miliyon di ko jox ay terrain walla ay terrain terrain di leen jox ay daamar teraanga ju gën a rëy teral doomu alquran kon nag tey bisu sant yàlla dëgg la nu ñëw fi nag ci turu Cheikh Abdoulahi Dia xaadimul quran di doomu kër gi di taalube kër gi mu yónni ñu fi ma ànd ak boo xam ni sëriñ alxaaji Mansour Samb nekk secrétaire général fédération bi bokk na ci délégation bi teewal fi fédération bi yëpp teewal fi président Moustapha Amadou Wan hmm. ànd ak président ma Kebe nekk vice président ci région bu Dakar ci daara yi waaye mu jiite département Tëngéej hmm. ànd ak sëriñ Adama Mbuub nga xam ni moo jiite organisation grand prix Sénico li muy rëy rëy rëy Adama Mbuub moom moo jiite organisation bi ànd ak ki topp ci moom Serigne Babacar Cissé jaamal di doomi jaamal waaye topp ci Babacar si euh, Serigne Adama Mbuub ànd ak keneen muy Serigne Abdoul Khadir Niang muy Serigne Jili moom itam bokk ci commission organisation bi ànd ak itam ki nga xamante ni mooy sëriñ Pape Samb nekk safooru sëriñ Abdullahi Dia nga xam ni bi ñu xëyee tey bis démb ci guddi la ma sëriñ Abdullahi Dia woo ni ma su ma sañoon sama oto bopp moo may yóbbul soxna Ndata ba biir Touba mu jël oto boppam tey bi nga xam ne ci la daan def ay kursam yépp mu jox ko soxna Ndate ñu nekkoon di ci dëkk bii kon Pape moom tam ci délégation bi la bokk ñu ànd ak tam ay mbokk yoo xam ne fii la ñu xëyee ci Touba ñëw ba Dakar fekk fa ñu sëñ Jiili Mbay ñoom sëñ Cheikhouna Mbay ñoom ñoom ànd ak ñun ñëw dakaar kon sëñ Xabbaan ñu ngi teg nuyoo bi nga xam ne Cheikh Abdallah moo ñu ko yónni sa loxo nga jàllaleel ñu ko ci suñu wayjur sunu baay sëriñ Muntaxa Mbàkke di ñaan yàlla suñu boroom yàlla na ko dolli wér ak kattan yàlla na ko yàggal ci sas yi nga xam ni moo ci wuutu maamam muy sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul damaa gis lu man neex ci jotaay bi lu sëñ Tuubaa daan def dundal nañ ko tey mu mu sedd sama xol mbégte mi ma amoon yëpp mbégte mi ma amaan léegi moo ma ko dàqal lan mooy mbégte mi sëriñ Tuubaa daa fonkoon alquran da daan jël alquran teg ci ay lal tëdd ci peron bi xool leen xale bu jigéen bi fi ko sëñ xabaan teg xool leen fi ko sëriñ bi teg ndax ay atam moo tax ndax juddoom moo tax ndax sa sëñ Mor Mbay Sise moo tax alxuraan ji ci dënn bi sa samaam maam daan ko def moom nga màggale xale bii wallahi mbokk yi image bi dara daq ko sëñ xabaan doomi sëñ Fallu surtout maam borom Touba. jël xale bu jigéen bu tollagul ci fukki at ñeent toog ci suuf teg ko ci kaw alxuraan a tax def nga lu rëy def nga lu màgg ku màggal alxuraan yàlla màggal la na yàlla màggal la li la sëñ Muntaxa jox mérité nga ko yàlla yàgg ci sa loxo sëñ Talla sëñ Xabaan mii bi ko waajuram di yóbbu màkkatal mu karama atu soxna Ndete mii la am ndax lan mokkal kaamil alxuraan mu yóbbu ko mag jërëjëf kon mbégte moomu man dana daanaka daf maa doy kàddu ba mënatumaa wax sëñ xaar ñu ngi lay nuyu gis nañ sa taxawaay ci liggéey bi ci fédération bi ci raabita waaye ci njabootu alxuraan gépp am na jëmm ju ma fàtte ju am solo mu ànd ak ñun muy sëriñ daara Omar Kane teewal fi waa ahbaabul quraan ahbaabul quraan liggéey nañ ñu rëy ci xale yi nga xam ne ñooy dem concours bitim réew ñooñu tam mën nañoo jaajëfal mën nañoo sant sëñ xabbaan suñ abdullahi ja nee na mi ngi sàkku ci yéen ñaan ndax liggéey bii muy def bu sañoon dara du ko fa xastal te ay ponk fa xastal mi ngi ci kanamam ngeen ñaanal ko yàlla bi li mu yéene ci yéene ko ci daara yéene ko ci sëriñ daara yi ak ndonga daara yi ngeen ñaanal ko yàlla yéene jooju man koo àggale loolu daal daane daanaka mooy kàddu yi kàddu yi mbégte kàddu yi xol bu sedd guy biñ nee ko seexu naa suñ seexu naa day ñëw ak soxna ndate mu ne ñoom samay gan lañuy doon bu nu ñëwee sama kër laa leen di dalal ñu ne ko loolu de am na solo waaye fa dal journaliste si dañoo war a ñëw di leen seet te mën naa am ñëw kër ga jafe mu ne kon hôtel ba ñuy dal maa koy jël en charge fayal leen ñaari guddi yañ fa fanaan bis bu njëkk bi nga xam ne ñoom ñaar dong nga ànd ñaari xar la leen reyal ñoom ñaar dong ni bu ca kenn lekk na ko ñoom ñaar man nag fexe naa ba mos ca ndax ndax barkeeb alxuraan mën naa toog kon daal loolu moo doon kàddu yi suñ doom ji yàlla na ko yàlla def mag Touba dama wax ni kenn mënul waxate ci alquran te tuddoo ko mënul nekk boo gisee ku la sut boo bëggee noppul nooy def ku la sut soo bëggee noppul nee ko njool mi alxuraan mënatoo koo tudd Sénégal tuddoo Touba bi concours bi tàmbalee 2015 ak léegi cinq yëpp doomu Touba ci bokk 2015 ba léegi laa la wax juróom ñaari édition édition bu jàll cinq premières yi doomu Touba bokk na ci bërki démb ci koor gi rekk sëñ Moustapha Touré moo jël champion Grand Prix Sénico Ibrahima Khalil Lo topp ci sëriñ Modou Mbacke topp ci ak ko ko ñeenteel Moustapha Dieng Sëriñ Modou Mbacke moom bi di surtout maam maam sëñ Fallou Mbacke jamono jii ma wax yéen ma nga kowet ma nga kowet di jongante beneen coupe du monde nañ ko ñaanal balaa semaine bee jeex ni ndate am am lu mel noonu barki dem ba ja dem na Dubai kon Touba kuy wax ci alquran te tuddoo ko dama naan kañaan loolu ci rëb bu leen yàlla defal la waaye liggéeyu maam borom Touba la bi may ñëw sëñ Abdoulaye ji daf maa jox chèque bu 3 millions ni ma soo demee que sëñ Muntaxa dénk njàngum alxuraan te man alxuraan lay noyyee lay dundee jëlal chèque bi tegal ma ko jëlal ko sëñ Modou Xabbaan mu sargalal ma sama doom ji sama set bii chèque baa ngi nii ñu ko teg ci loxo sëñ bi mu jébbal ko ki nga xam ne mooy soxna Ndate 3 millions moo ci nekk mu barkeeloo ko ci bis bi sant ñëpp gërëm ñëpp kii nag day sama soppe bopp di sama doomi ndey di ko yàlla baaxal waaye di sant képp ku dëkk Touba sëñ Alla Ndiaye Cheikh Ndindi gis nañ taxawaayam Cheikh Ibrahima Dia gis nañ taxawaayam waaye sant sëñ Cheikhouna mi nga xam ni moo jàngal xale bi ndax ndate lu mu mën a am bu ci Cheikhouna sonnul woon du ko am kon yàlla yàlla fay ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw xel xel day fat sëriñ Bassirou Sakho ak sëriñ Mamoun Mbacke nga xam ne ñooy coordonnateur Grand Prix Sénico ñoom itam ñu leen di sant bu baax baax ci seen taxawaay ndax bi ñu demee Daaru Salaam sëñ Bassirou mobilisé na Daaru Salaam gépp kon moom itam ñu ngi koy sant di ko gërëm kontaan te dina tax nga fàtte ko warul fàtte waaye suñu xol daj na ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah nga joxal ko ko soxla waaw kon gis ngeen ko noonu. sëñ Sall Kouma. maa ngi lay jox maa ngi lay jox président Assis yow mi nga xam ne yaa jiite Abdoulahat Ka en tant qu'opérateur économique danaa ja danaa gàttandoo. waaw déglu déglu terele pour Serigne Touba. waaw sama 1 million ci sama ñàkk bopp. waaw waaye maa ngi ñaan nag mboolem opérateur économique yoo xam ne si ñëw nañu ci dëkk Serigne Touba baaxalee. Hmm. nga soññ leen kenn ku ci nekk yëkkati ci saw ñàkk. nga dajale ko yow mi président bi ak ñi nga am daal ñu terale ko alxuraanul karim soxna Ndatte mii nga xam ne dañu leen a napp moo ñu fekkee bu subaa dinaa la yónnee un million incha allah. salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. maaleykum salaam. mbokk yi mbokk yi ñu ngi jël kàddu ci turu Serigne Mor Xabaan Fatim mi jiite. ñu sëñ bi dénk lépp lu aju ci wàllu njàng alxuraan kàddu yi du gudd lu gàtt la doon incha allah ndax donte xam nañ ne bu fi nekkoon ba suba kenn du xam nañ ko waaye nag sëñ bi dafa sàkkoo lu jiitu suñu kàddu du jib ñu jox suñu daam jaane ci xasida gu mbàkk mu jàllale ko ñu doog a indi kàddu rahmaani rahim ab jëpp bu ñoo doon jongante ci njàngum alxuraan ka ca raw dëkkam ba mooy Sénégal ab lim bu takk ci réew ñoo doon jongante ci njàngum alxuraan ka dëkkam ba mooy senegaal ndam lee Europe Amérique doon wër biir Asia ngir natt mokkal bi wér ci africain la légal tajwid bu neex tajwid bu set baax bu neex tey dëkkatul ca ña weex la ñooñu doon yóotu daal sunu daan ngay ki walaal jaaraama yow ndete siis daggoo fi neuf ak i siis pb ñu doon napp moom la yàlla yëpp ci sa gaal ndokkeel la day farata sargal la war ci ku ne waa kumba doom si nga waa Sénégal yàqu gago rungewoo doom nakk nakkaliwoo juróomi laaj la ni tëf jox leen ko bant mu laal laf cat ma jël la leen neex gaa ga yar ba ca ne ak dal ga tuuti mu yee warsoo ci ibnu jalaal tey vert zone rouge sa kaw makkeen bi lay tiwite soo siiw gis sa sëñ daara ña jootu sa gaal tey vert zone rouge ca kaw makkeen bi lay tiwite soo ko ne siiw gis sa sëñ daara ña jootu sa gaal yokkaat nga gàmpu di bës yokkaat nga gàmmu gi ba fu ñu tànte ne nga ko puus bégloo nga naw ati mag yëngal nga tey Sénégal yaa di teeru ni buur yaa takkal ibi door yaa jar jëri tungoo nga cax la laal talaata ba nga bàyyi ko Dubaay ba ñëw te nga gis ñee def la kenn kaaba ñee xëccoo xajal moo laal Touba mi moom ndam di moom doon la la siintu xamis jaaroo ci kaw apéage dettal nga route nationale mbokk ak arène bi la ñee may la mbool ku sët xol yëpp a sedd ci yow ndax ndam nga ndam national jaajëf sëriñ Seexuna liggéey bi yëpp yow rongoñ yi daaw jéege moom lañ fompe ndam lu xalaal jaajëf sëriñ na liggéey bi yëpp yow rongoñ yi daaw jéeg moom lañ pompe ndam lu xalaat ngañaay li yàlla na la jig jig bépp xol bu ci bépp tey buntu naataange ak xéewal ci biir Sénégal ngañaay li na nu jig jig bépp xol bu ci bépp tey buntu naataange ak xéewal ci biir Sénégal mbokk yi ñëw leen nuyu di ci ndam lu def bi waaye di sëriñ Mountakha Mbacké moom Cheikh Amadou Cheikh Amadou mi nga xam ne moo jëwriñu toolu Cheikh Khadim bi radiyallahu anhu di ko teg ci loxol jëwriñam di sëriñ Modou Xabaan mi nga xam ne moo sàkk suñu jël kat ci turam dana àggale nag sëriñ bi nee na day ngi sant mbooloo mépp ci turu sëñ Mountakha ndax la ko dalee ci talaata bañ koy teeru ci aéroport sëriñ Mountakha ci boppam bu manoon moo ñëw boppam ndax teeruwul gan bu mu gën a fonk ci gan bu ko indil ndamul alxuraan gan bu ko indil alxuraan bu sañoon ba ngeen ko teeroo ci aéroport ànd ak moom Dakar ca lay nekk moom seen xabaat nii nekkal fa sëriñ Mountakha ndax loolu la yéene si Mountakha bu sañoon dafay ànd ak yéen cortège bi ba ni ngeen accès fii loolu moo waral ba maanaam fi nit ñi moom takkusaan nañ ko waxoon mu toog ginnaaw timis kilifaam doon na ko yebal ci mayeb sëñ waaye bi mu xasee xam li mu nekk rek da ko daal yolomal waaye moom it nee na li tax yëgul coono bi yëgul tàngoor bi yëgul metit bi mooy jàpp ne na lu ci nit doon def moom nga koy defal ndax dañ koo sas xam na sas mu ko sas dañ koo tànnalit ay àndandoo yi gën ci àndandoo yi mooy ñi nga xam ne ñoo wutu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne li sëriñ Tuubaa wax ustaan yi suba ak ngoon sëriñ bi nee na kon loolu ko sëriñ Muntaxaa tànnal aw sas wu rëy la ci moom nee na waaye àndandoo yooyu nag am na yaakaar ci yéen am na yaakaar ci seenu ñaan ngeen ñaanal ko ndax am na yéene lool ci am ndam liggéey bi ñor na ko lool yitteel na ko lool bu sañoon fu daara nekk tànkam teew fa bu sañoon fu ab sëñ daara nekk mu teew sa wet bu sañoon sëñ daara bu am yitte mu dal di koy faj na ngeen xam ne loolu moo nekk yéeneem moo nekk bëgg-bëggam moo nekk ci xorom nee na mi ngi sàkk yéen ñii xëy ci téere bi di gont ci téere bi ngeen ñaanal ko ci nee na mi ngi leen di ndokkeel yéen sëriñ daara yéen yéen ñi nga xam ne yéene yor coono bi yéene yor métti bi yor tàngoor bi muñ lépp ba ndam lii feeñ ndokkeelu suñ daara yooyu nag ak sargalu suñ daara yooyu mi ngi koy teg ci tey ci loxol Serigne Cheikhouna Cissé mi nga xam ne moom la yàlla jaarale ndam ci moom ci ñun ñëpp ñu am ci benn yëg-yëg suñ daara ñu bari nañ ci lool kenn noppaluwul suba ak ngoon jàpp ne ndam li sa namal bopp la loolu li muy tekk la mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne benn yaram lañ ay cër rek a fi nekk lu dal cër cër yi jëres yëg ko kon alhamdulilahi rabbil alamin nee na bu bu doonoon tey nit ñi teeru nañ ko mbooloo mi teeru ko fu ne teeru ko te suñ daara yi teewul xolam du set waaye nee na yéen coono bépp yéen a ko yéen ko ràngoo ku ñëw danañ caa fekk ku ne mi danañ ci kon loolu mi ngeen ko seeral bu baax a baax a baax nee na di ndokkeel di nuyu waajuram wu jigéen wi nga xam ne moo toog di ñaanal waajuram wu góor ba nga jiitu sëñ jii di jun ci ab cër la ab soññe la ci sépp soxna soo xam ne yaa ngi liggéey nga góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax ca ka nga nekkal kon nañu ngi soosu di sargal soxna bu baax di ko ñaanal yàlla aar lool wéral aw li nga xam ne moom mooy ay yéeneem li nga xam ne nag moom la def Serigne Touba radiyallahu ku ñu wax Serigne Moussa Alima Gueye bi ko bi mu àndee waaye ñëw ci Serigne Touba radiyallahu anhu ku baax ki ne ko nu mu def noonu nu mu def ak téere bi sëriñ bi bépp téere bu mu bu dee naxwu bu dee mantiq bu dee usul bu dee bayaan bu dee mustalax fiq xadis lu mu doon danaan la téere sàngam bi lu téere ba waaye bu dee téere bi alquran lay wax bu ko maarifaale rek alquran lay wax mu ko nu mu def ak téere bi ca nekk tout tànk ah, moom day wattu na sëriñ bi ne ko bismillah mu tàmbali alif lam mim dalika kitaab ba ci al muflixoon bi sëriñ bi ne ko wax nga dëgg li nga jàng seere na ne mokkal nga bi des dal di koy jël teg ko ci kawam moom sëriñ Tuubaa ku ak si moo ne tey damaa am gan gu tedd bëgg ma ko teral ne nee na kon lii mu def loolu lay jéem a roy loolu lay jéem a firndeel waaw loolu lay jéem a roy loolu lay jéem a ni sëriñ bi fonk woon alxuraan na mu tege woon alxuraan ca kaw ne woon alxuraan muy léppam léppam kitaabuhu sanani an kulli mafsadatin wa kaffa anni l ada kama mahaadarani ayni wa diini wa aadaati bihi sarahat bihi unabbihu ahlal asmi wasali kon foofu si Sëriñ Tuubaa Sëriñ lu ma am alxuraan sama li jag lépp sama lépp rafet na ci alxuraan nee kon képp ku bokk ci moom am nga caaw sas rawat na nag moom mi ñu ko dénk daara yi nee na waaye ñu ngi sant ngeen ñaanal bu baax a baax a baax baax nee na mi ngi sant monsieur bu baax bi muy wax xaal la doon waxee waxewut monsieur le maire bu mairie xaal am murit buy wax ab jullit buy wax bu yëg ak dëgg-dëgg mbégteem ci alxuraan boo xam ne it xam xam xam ne waxuñu eh, lu ñu waxee nii de waaye raar na lu ñu waxee nii bu dee bu dee am na it loolu am na ci dégg ngeen engagement yi mu fi jël ci turu maire yi 3 millions engagement boobu 1 million loolu day mandargaal ndax lu mu waxoon waxoon lu wax wax ñu saf doon wax firndeel na ko ci ay jëf sëñ bi nee na ñu sant bu baax sëñ bi nee na di leen gën a dénk daara yi ngeen gën a jàppale daara yi ndax ndam lu rëy nii lu la ko indil nee na ko jàppale boo xam ne amul woon ay moyens ci moyens yi boppam la doon demee yu yu néew doole yu ñàkk solo di ci góorgóorlu ba sagale sagale nii réew mi nee yow mi fi teewal état mi ngi ko teg sa loxo waaye ca ku ku màkk la jëm muy président moom mi nga xam ne sëñ sëñ daan jaane la wax na ko léegi maanaam ginnaaw mi ngi ko bind ci trottoir di ko félicité mi ngi mandargaal ne kon am na mbégte bu baax a baax a baax mbégte moom nga xam ne moom la ko doom ji indil nag na bàyyi xel loolu sigil Sénégal ñëpp naan Sénégal Sénégal Sénégal ngir jëmmam ji mu champion du monde nee na nañu bàyyi xel la togg loola muy waaraara nee na sëñ bi nee na mi ngi ko dénkaat bu baax a baax luñ ci góorgóorlu doyut nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax baax baax a baax ci li ñu tegee sëriñ bi nee ngi sant press yi ndax presse bi wax dëgg yàlla ah ñu ah, ah, bare ñu bare bare bari ci ay événement ñaar bu désordonné comme nii ñu bari dañu rocc seen i kii dem loolu xam ne leen bu mel nee nen rek ñu bari dañu rocc seen i caméra daal di dem waaye yëg gi ngeen yëg ni lii ak jaamu yàlla la tasaare gi ngeen ko tasaare di ngeen ci am ab yor insha allahu taala kon mu tax mu jàll leen lépp boobu ba léegi nëpp lu leen ba ngeen di ñëw fee yéen seet seen ñëwal seen bopp bañ fa jógee ñun ñëpp dugg ci oto yi ngeen lijjanti lu ngeen dugg ñëw jiitu suñu waat fii loolu kon pëstéef la pas-pas sëñ bi ne li ngeen ci séenu yàlla ngeen ci am lu ko lu ko raw ku mu doon ci yéen yàlla na dem ba am télé boppam ak lépp jumtukaay yoo kon nag xam naa ne ñi ma ci ak cant nee na dana lool mu mat waaye maa ngi ko daanaka soxla musulmatu soxna muslim sëriñ Modou si Dieng mi nga xam ne boroom daara la nekk seen wet ca ngoon ba léegi ma nga fële ca barab ba taxaw boobu ba léegi mi ngi ko ànd ak ñun boobu ba léegi fu mu toll mi ngi may woo kañ la ñuy def nangam nan la ñuy def lan moo ci nga xam ne dafa àggoon ci ñoo ko ne ko ni situation bi demee ca xamoon nañ lii waaye dana doon day yokk daara ñëpp indi leen ci teeru bi wutal leen ay kaar ma ne ko nag bu mbooloo mi tasaaroo dana jafe ku yor ay cuut ay cuut maanaam dana jafe nga napp leen dugal leen ci tax maanaam loolu day jafe booy boo rek nga nga nga te teewaale bi maa ngi ànd ak ñu waaye nag ci loolu sëñ bi nee ci loxoom mu jàll ci mboolem jigéen ñi ñëpp jigéen ñi yëngu ci alxuraan ñuy jàngale alxuraan way juróom soxna maam Mariam suñ suñ suñ sëriñ Soyibu soxna Maylaat soxna maam Awa Mbàkke sëriñ Bachiru ak ñi ci yëngu ñëpp ak mboolem jigéen ñi yor daara nee daal si nuyoo soxna Moussa mi ngi ko teg sa loxo nga di ko jàllale sëriñ Xaadi sëñ bi sant na bu baax a baax taxawaay bi rafet na lool wax dëgg yàlla mooy yow mi nga xam ne yaa jiite rabitatu madaarisil quraan yi fi Sénégal rabita bi di kuréel go boo xam ne 2000 la sosu woon liggéey ci ci terrain bi lu baree baree bare fàcc terrain bi ci bi méttee jànkonteeg ay jafe-jafe yu baree baree baree bare weexal ay bët yu xonk yu baree baree baree bare yàlla dogal nag sëriñ Xaadi Njaay nekk au niveau national ci al am ñu ñuy yor seen man mii ma yor kàddu rabita bi waaye sëriñ xaar yi nekkal ñu fii ci Touba di suñu kilifa ñun ñëpp waaye ab taxawaayam rafet na taxawaayam mboolem ñu ànd ak moom sëriñ xam ne Moustapha Diop mi ngi nii sëriñ Xaadim euh, Touré mi ngi fi sëriñ Mame Cheikh Ndiaye ak mboolem ñi nga xam ne ñoo fi ne sëriñ xoolal sëriñ Abdou Samad Sylla ci ci ci at yi mu toll ma damaa gees gis sama sama dé pratique waaw bu ko neexoon mënoon na faa bañ a jaar wax dëgg yàlla ñun ñëpp mën nañu ko faa teewal ñu leen sant baax sëriñ bi sëñ sëñ Talla nee na sëñ sëñ Talla sëriñ bi nee na mi lay sant di yóbbante ak cant yaa ngi ngi àndal ci sëriñ Abdoulaye Dia moom day gis nañ ak bëggam alxuraan firndeel na ko ndax alal du caaxaan alal du caaxaan boo koy wut di ko dagale fa nga koy def ñor na la yitteel la man damay faral di nettali moom moom Abdoulaye Dia lu ma nettali woon man lu ma waxoon loo xam ne daw sama yaram la dana man damaa dem kokki bis dem ca daara dem ci benn xalqa fekk fa soxna su jàngale alxuraan boot doom nee na jëndal naa moom mi jàngale ak dong yi muy jàngale waaye nee na lii xale bi mu boot rek dama koo ñee ñee ñee ndax jawi alxuraan bi nekk bi wax loolu ron ko njàng ko kon kooku ku bëgg alxuraan la yàlla na ko alxuraan fay yàlla na ko alxuraan dara waxtu nekk sëñ bi nee na ci ñuy jeexale mooy ministre de l'éducation nationale mi nga xam ne soxna Awa Diop mi nga xam ne moom ministre bi ñu chargé lépp lu jëm ci wàllu daara di soxna sëñ xaban nii waaye teewe woon fa ndomb ak googa teewe woon fa doon doomi daara waaye teewe woon fa jëm sëñ xaban ñëw àndak ak soxna ndate ànd ak mbooloo mi teeru ko ba li war lépp mu def ko sëriñ taala jokkoo ñu doon jokkoo yëpp gis na ko ko yitteele woon ak ni mu ko ñore woon sëñ bi nee na ko en tant que soxnaam waaye moom ginnaaw moo jiitee daara yi lu waay defal daara mu nga ko defal loolu si cadre boobu la ko sant bu ko keneen defoon it mu sant ko kon loolu nañ ko bàyyi xel baax a baax bi mu teeru xale bi dalal ko dalal ko jël teraanga mu jël ter ko teg ko ci loxoom jël teraanga teg ko Serigne Cheikh Nassir Seye Serigne Daara ñun ñëpp ko defal sëñ bi nee na ko ci sant ndax lu waay def ci loolu mu nga ko defal waaw cant gi nag ñoom ñaar ñooñu lu ñu ci def nee na mi ngi jàll ci président Macky Sall mi nga xam ne seen jëwriñ bu leen waxoon du ñëw du ñëw bu waxoon kenn dafa dem kenn dafa dem ba ma ci njëkkee jokkoo ak genn kilifa wax ak moom mu jokkoo ci ak moom dana président nee na de insha allahu dana yabal ndax ay ministre ñu teew loolu waxoon yabal ministre teew teew xar loolu nag defe naa noonu ñu ngi sant baax xam naa ne sama turu bokk ñun suñ daara yi ndam lu rëy lii ñu indil ko réew yi sant ministre de l'éducation nationale bu baax moom ñu teeru dalal mooy suñu féete ndax ci foofu lañ foofu lañu féete ci wet googu waaye daal ndam li ndamul Sénégal gépp la buñ sa yoon teg ko ci loxol Sénégal gépp am na koo xam ne nag bu ko tegee ci loxoom ci wàllu république ci wàllu réew mi ci wàllu réew mi ndax bu ñu tegee bu ñu teg loxo dëgg dëgg loxo Sëñ Tuubaa lañ koy teg mu sëñ Mountakha Bal mu wala mu sëñ Mountakha hafizahu llah am waaye wàllu république bi am na koo xam ne koo teg ci loxoom mel ne teg ko ci doomi réew mépp muy président de la république am nañ yéene nag bëgg nag mu dalal soxna Ndata Cissé teeru ko teral ko ndax mboolem kuy mas a teral bi teraanga ji indil réew mi yëmut ak teraanga ji indil réew mi loolu maa ngi koy bàyyi xel bu baax a di ko ñaan seen ko ñaan di ko yalwaan ndax ay donga daan leen seen ni ko yalwaan donte lu yàlla la lu jaadu la loolu nag ma wax ko léegi ñu déglu suñu xabaar mu àggal kàddu kon sëñ bi nee na ministre bi nee na fan yii néew danañ ko dalal incha allah waaw sëñ bi nee na ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. di nuyu mbooloo bi. ci ndigalu Cheikh Mamadou Mountakha. ci ndigalu Cheikh Mamadou Mountakha. yàlla na ko yàlla yàggal lool lool. sëriñ bi wax ne. sëriñ bi wax ne. am na cant lool. am na cant lool. am na mbégte. am na mbégte. te mbégte mi ak cant gi. te mbégte mi ak cant gi. da koo ànd ak Sénégal lislaam gi waa lislaam bépp. da koo ànd ak waa lislaam bépp. ndax ndam lu Seexul Xadim am. ndax ndam lu Seexul Xadim am. ci alxuraan. ci alxuraan. moom ñëpp ko séddoo. moom ñëpp ko séddoo. ndax moom si maamul wala asri la wax. ndax moom imaamul war a asr la war a. imaamul war a asr. kon ku ku ku ci lu baax rek. nee na kon kooku ku yëngu ci lu baax rek. yaa ngi ci biiram. yaa ngi ci biiram. kon nag mbégte mi am tey. kon mbégte mi am tey. mi ngi jot jot li cant ci yéen. mi ngi jot li cant ci yéen. ndax bu mbégte mi amee. ndax bu mbégte mi amee. seen taxawaay la. seen taxawaay la. ni ñu ko waxee woon léegi. ni ñu ko waxee woon léegi. su ma tuddee seen daara su ñu tuddee seen daara yi. tudd sëñ Cheikhouna Cissé. tudd sëñ ak ni ñu ko gungee. te sëriñ bi wax ne. te sëriñ bi wax ne. di ko gën a am di ko gën a amal ak cant ci kër dëkk bi. li ko gën a amal ak cant ci dëkk bi. ay daara ay junni daara fi nekk. mooy ay junni daara ñoo fi nekk. waaye benn daara bu ci bu ci am soxla. waaye benn daara bu ci am soxla. daara yëpp dañuy jóg. daara yëpp dañuy jóg te loolu nag mi ngi rogaat jëm ci jëm ci euh, Sénégal gépp jëm ci àdduna bi. loolu nag mi ngi rogaat ñëpp di leen ci roy mu yàlla. kon mi ngi ñaan yàlla xale su doom si nga xam ne day doog a tàmbali. suñu doom si nga xam ne mi ngi doog a tàmbali. di tàmbali dugg àdduna. di doog a tàmbali dugg àdduna. tàmbalee bëgg a xam boromam. tàmbalee bëgg a xam boromam. suñu borom yaatalal ko ak musalam. suñu borom yaatalal ko ak musalam. te musal ay waajuram ba ba ñu fekkee njariñam. ngi sant ñëpp. nee ngi sant ñëpp. wax dafa mënut a ñàkk rek. wax dafa mënut a ñàkk rek. waaye fii moom. waaye fii moom. ku fi ñëw sa sedd. ku fi ñëw sa sedd. turux yëpp a ngi fi. turux yëpp a ngi fi. xaadir. xaadir. tijaan tijaan. murid murid. laayeen laayeen. ñëpp a gunge si xale bi. ñëpp a gunge xale bi. loolu sëñ bi nee na lépp yëg na ko. loolu sëñ bi nee na lépp yëg na ko. tàmbalee ca Dubaay. la ko tàmbalee ca Dubaay. ca ndan ya fa amoon. ca ndan ya fa amoon. ak ndan ya. ngan ya fa amoon. ak Sénégal. ak Sénégal. muy Ndakaaru. Ndakaaru. dëkk bu waroom. dëkk bu ñu romb. ku ne bëgg koo ganale. ku ne bëgg koo ganale. loolu ki tax ñu xam ko. nee na ki tax ñu xam ko. mooy Cheikhul Khadim. mooy Cheikhul Khadim. moo moo waloori moo li ñu naan moo waloori sa alxuraan. moo ñu waloori sa alxuraan. sonn ci alxuraan. sonn ci alxuraan. tàggat ci ay ñooñam. tàggat ci ay ñooñam. tàggatu saayir nag. tàggatu zaahir nag. baatin bi soog a ñëw. baatin bi doog a ñëw. xaw leen a alak ci ñu xam ni ñu ko war a xamee. xaw leen a alak ci ñu xam ni ñu ko war a xamee. te alagu leen ciy dóor. te alagu leen ciy dóor. waaye ci yar ak teggin. waaye ci yar ak teggin ci wéetaay ak ci wéetaay ndax yar bi gën a gaaw ci nit ndax yar bi gën a gaaw ci nit mooy ak wéetaay mooy ak wéetaay booy booy jaamu yàlla sax booy jaamu yàlla sax xalwa bi xalwa bi. mooy ëpp doole lu dul xalwa. mooy ëpp doole lu dul xalwa. yal na suñu borom fayal Seex Xadim. yal na suñu borom fayal Seex Xadim. yal na sant ñëpp. sëñ bi nee na sant na ñëpp. bu dee ci wàllu soxna yi. bu dee ci wàllu soxna yi. su ma tuddee soxna Ndate ak waajuram. bu tuddee soxna Ndate ak waajuram. jox cant gi soxna Musli. jox cant gi soxna Musli. gis naa fi sëriñ sëriñ daara jigéen yu bare bare. gis naa fi sëriñ daara jigéen yu bare bare. waaye sama xol daal daa fees ba mu. waaye nee na xolam daal daa fees ba mu wax nañ bëgg a wax. ku fi teew daal. ku fi teew daal. yàlla suñu borom faj sa aajo. yàlla suñu borom faj sa aajo. te teewe déwén yu bare. te teewe ko déwén yu bare bare. téeméer ak yu tegal. yu ma téeméer yàgg te yu ànd ak mucc ak wér. yu ànd ak mucc ak wér. te lépp sëñ bi attan na ko ci ci ñaanam gi mu ñaan boromam. te lépp sëñ bi attan na ko ci ñaan gi mu ñaan boromam. li may te gépp nangu. te ñaanam gépp su borom nangu. irham jami al wara. irham jami al wara. ba mu ko waxee rek. ba mu ko waxee. ñun ñëpp dugg ci biir. ñun ñëpp dugg ci biir. ñu ngi ñu ngi nuyu Moussa Deme. ñu ngi nuyu suñu sang bu baax ba. ñu ngi nuyu suñu sang bu baax ba. di di jëwriñu sëriñ bi. di jëwriñu sëriñ bi. di Cheikh Sidi. sëriñ Sidi Mbacke. di nit ku di ab royukaay. di ab royukaay. Eh, yàlla sant bu baax. ñoo ngi baax a baax. di sant ñëpp rek. di sant ñëpp. di sant suñu xarit yi sëñ Sall ak. di sant suñu Sall. suñu Taal ak suñu Taal. mboolem ñi ñi ëmb ñi ñi ëmb xale bi ñëw. xale bi ñëw alxuraan dong ko man li alxuraan dong ko man kon nit ko am juróom-benn fukki at nit ko am juróom-benn fukki at wala lu ko jege wala lu ko jege ànd ak topp topp ko am fukki at topp ko am fukki at loolu yàlla alxuraan dong ko man alxuraan rek ko man te loolu nag te loolu nag fii Sénégal dong koy gisee Sénégal rek nga koy gisee fa alxuraan wàcce sax fa alxuraan wàcce sax loolu amu fa loolu amu fa ndax loolu seenu yaafus loolu seenu yaafus moo tax ñu ñuul ñi di ko jël di ko sécurité bi takk takk der yi takk der yi sëñ bi nee na ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax ndax seen i seen i coono ak seen i taxawaay rafet nañ ko bu baax a baax a baax sëñ bi nee na ñu ngi jox ko kilifa yi ngeen jox ko bu baax a baax sëñ doy bi nii bi jokkoog ñoom suñ bi laa jokkoog commissaire wax ko waaye booba léegi daanaka ñoom ñoo may soññ booba léegi ñoo may soññ sëñ doy bi suba léegi woon na ay yoon yoon yoon yoon boole ak sëñ jox ko taal taal bi nga xam ne bu gis sëñ bu taxaa gis ko moo lay xamal ne sëñ bi yëpp ñoo xam nee na wax na ba noppi wax na sëñ bi dafa nekk wax na wax na ñu koy jàpp sëñ bi jël daal ñëpp ngi ñibbi ñëpp tàll ñëpp tàll ñëpp tàll ñoo ngay ñaan waaw ñu ñaanal seen xabaar yàgg lool ci ànd ak liggéey amiin na ñëpp tàllal bu ko defee ñu yeewi ñëpp nag ñu ne leen may benn xale bi comme dafa sonn ñu jéem a yeewi ko rek